waaye Cheikh Sidi Hadji Malick mooy seen maam balaak maaram Aysak Sadio maam jaaru busum ci Porokhane waaye bàkk rek dara man aram loo kumba caam bañ penda waalo waalo bugguma penda ak paate penda ak xar yàlla bopp coor ndax jur ndëri ndëri jur basa basa jur ali boy ali bu jur roqee njaay roqee njaay lañ jox seen aj Malick mu jur fat si Mamadou si ak sëriñu maître Amadou Diaye sëriñ Babacar si sëriñ Babacar si mooy sa maam waaye sëñ Fallou Mbacke mooy sa maam ndax maara may maamam waaye maam Cheikh Ibrahima Fall sa maam Amar Fall Seer Ndiaye Birame Njëg ma càngaay góor dëgg bàyyi lalla farma farma daawur yaasin mi ci mbul la ko def mooy maam maara Mbacke mooy maamam Cheikh de Jalaw Seck Gaynde Nguraan sa maam ndax maara Mbacke mooy maamam waaye Serigne Adi Touré ca Fass Touré mooy sa maam la ko def mooy maam Mara Mbàkke mooy maam dama ne xanaa réew mi kenn gënu leen fi judd dama ne réew mi xanaa kenn gënu leen fi judd waaye ku bëgg ci loolu tàccul waay baaxi bokk mooy tax a baax nit du nduru bokki jàmbur ku ne say bokk nga bu dee judd war ngaa yow réew mi doo judd jéeri noo badam taan fii nga dëkk ci réew bu dee macha allah yar bu rafet war nga mëna a kan moy sa bay Adama Diallo ancien député maire bu seen nek fi yoron commerce sha allah yor finance di def di dindi ci réew mi te kenn musu ko audit ko moy sa bay bo yorul réew mi xawma kan mooy yorul maître kii dootul que lui maître kii dootul que lui gisumako dootul kër yi sa kër maam duñ topp ci ginnaaw kenn président Mamadou Lamine Diallo sa kër maam duñ wax di ca dellu président Mamadou Lamine Diallo sa kër maam duñ waru mool sa kër maam duñ dox ci ñat la te ku sàcc seen mbalaan guddee àll mbaa nga génnum réew nga donn ngor ga dond jom ja dond fulla ja dond fayda ja

jàngi góo parfum maa yoroon micro central mu fekk ma fa moom nii di nit ku baax di góolu Seydina Mohamed